salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet point comme kon ni ñu koy defee saa su nekk yaakaar naa ne ki ñuy dalal euh, yéen mbokk internet yi miin ngeen ko parce que yàgg nañ ko dalal suñu palaato mi soxna Aïda mu Serigne Saliou euh, moom nee naa leen moom mooy def liggéey ba pare jël lépp lu mu xam ne liggéey na ko dem jox ko niiru doole yi tey kooku la dalal du ñu def lu dul rek jox ko kàddu yi mu nuyoog mbokk internet yi dakarnet yi après ñu di ko moom ci waxtaan soxna suñu leen di di la ziar. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum diaspora waaye maa ngi nuyu suñu bunt ci sëriñ Touba di sëriñ taxaaba Bassir di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam yan bi yàlla na oyof ci kawam waaye di ñaanal sama sëriñ sëriñ Saliou yal na yàlla yokk ay leeram njaboot gi mu fi bàyyi yal na seen fan yu mel ni wu doj fu kilifa diine nekk soxna ay daang lay ziar di la nuyu di ko nuyu di ñaanal Baye Laay di ñaanal Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal xalifa général de Tidiane. yàlla bàyyi ko fi maa ngi nuyu kuy tarxiya rek soxna Ayda a lay nuyu di la ziar. Oh, Kounkandé moom du ma ci sori ku xam soxna Ayda xam ni fulla rek lay wax fayda rek lay wax du waxantu Kounkandé moom ñaari wax yi rek laa koy wax mooy bu xaree géej ma ñuus ko ma ñuus ko bu xaree géej gi ma ñuus bu xarut géej gi it ma ñuus ko njagam wax na ko ba pare waa géej gi sunu géej la géej gu sëriñ Touba jaar julli fa ñaar ràqaam ya mam laay di boroom géej lu ñuy añee chaque jour di jóge ci géej gi ku ko ànde moom mu ne day ñëw dagg géej gi bu doon dagg la duñ fekk utal nañ ko yoon wu yàgg kon moom géej gi lay fawe ñun suñ yëfi maam yi ci kaw géej gi coow lu am ci réew mi ci géej gi laa koy fajee moom mu ne day xar géej gi bu xaree géej gi ma ñuus ko bu ko xarut ma ñuus ko xam nga kii mën du waaj ay lendemain tam xarit xëy na dafa bëgg lu mu liggéeyee pour lu mu bës da ci doon wut moo tax bu ñu xoolee tegtal bi jaru gaay di sori nañu xool fi mu ko waxee nee na ko ñu ngi ci tabaski ñëpp di am préparation jënd am xarum tabaski moom étranger la non moom étranger la dëkkul ci réew mi dama ne nit mën na doon sax lu mu mënti doon suñ borom dimbali ko am lu mu balancé ci moom kenn du xeebal kenn li ko yàlla may mais moom amul capacité pour xar géej ji géej gi sunuy maama fi jaar li su sunu réew mi li muy baax baax baax li baax ci réew mi yëpp a ci biir géej gi géej gi ku ne jaar na fi jàll suñu mag ñu baax ñëpp jaar nañ fi dama ne ko ñaari rek laay wax waa ji bu xaree géej ma ñuus ko bu ko xarul ma ñuus ko loolu rek man laay wax man bu ko xaree ma ñuus ko bu ko xarul ma ñuus ko ak fu mu mënti nekk ma ñuus ko ndax fi ma koy la ma koy ñuusee mi ngi ak man te fu mu ne dinaa ko ñuus. non dama koy ñuus fii li fi xew yëpp ku ma bëgg a ñuus ñuus naa la mhm, ku ma bëgg a ñuus ñuus naa la dama koy ñuus mhm, dama koy ñuus te du ma ànd ak kenn. ban màkkaama yow gars yi dañuy peew rek gars yi fii ñi fi wax ñoom dañuy peew rek liñ fi wax yëpp ay peew la rek dafa bari ñu mel ni moom duñ wax dëgg dañuy peew. kaani guwaanaa gi la ñuy lekk tàng jël rek di di di dem du ñu xam lu ñuy wax du ñu xam fu ñu ko teg. nañu warmaal nañu warmaal doomu aadama yi warmaal kilifa yi warmaal li fi suñu maam yi bàyyi. warmaal li nga xam suñu borom a ko sàqal boppam joxu ko kenn pour mu sàq ko géej gi bi ko suñu borom di wàcce kenn ku ne sa baay ngi nelaw géej gi bi ko suñu borom di tarancé ku ne sa baay mi ngi nelaw ku ne sa baay ngi nelaw suñu maam rek a fi def lu kenn defut sànni deram julli. moom rek la ko yàlla may keneen ku yóbbu woon sa baay mu julli sa baay day lab fàtte caay yi ci kaw muy féey nga naan da xar géej gi ku kante ne day xar géej gi li sëñ def ci géej gi géej gi mu ne da koy xar yoonu géej gi li mu fi def mu ne da koy xar na ko xaaj seet na ko xaaj seet ma ne na ko xaaj seet moom na taxaw buntu géej rek di xaar buy xaar dama fa fekk. ah ban géej la fi daggaat géeju bàyyi laay gi de bu ko daggee bala muy yegg si moom yaakaar naa ni buy ñibbi moom dina am lu mu fi fàtte bu ko ŋaaŋee rek moom duñ ko xaar moom tamxarit du jot balaa ñu naan lendemain tabaski moom bu xawaa denc nañ ko bu yàgg rob nañ ko bu yàgg di ko xaar ci buntu géej gi lañ koy rob Ah, mais kenn ku ne da ngay seet rek koo xaw a yab tuuti rek nga dugg ci moom lébu yi nag xam nga ñoom dañuy xaar rek ñoom seen wax bariwut <laughs> ñoom dañuy xaar te leer na ma ni commencé nañ koo ñuus bu yàgg bala ma koy ñuus ñu ñuus ko man moom maa ngi koy ñuus moom moom xam na ne maa ngi commencé naa koo ñuus bu yàgg dootu ci waxaat bu insister ma taal sama oto fekk ko këram ñuus ko ñibbi bu insister ci géej gi ma taal sama oto fekk ko këram ñuus ko ñibbi bu xaree géej gi ma ko bu xaree géej gi ma ñuus ko non xam nga gars yi yow tamit Sénégal fii senegal la fii Sénégal la dañuy fekk réew mi fi mu toll réew mi yaakaar naa kuy dem naan dina am nga loo war a régler ci réew mi fi réew mi toll deewu ndaw ñaa ngi bari coow li bari ñuy tooñ nit ñi ku mën demal nga fay coow li fi nekk bala ngaa dem di fay ay ndox ay ay ay géej ak ay jaarale ay géej gars yi dañoo dañuy dañuy fen rek ñoo mun fen quoi ñoo mun fen quoi dañuy fen rek lañ bëgg dañuy fen rek tooñ gi moo bari suñu boroom a mer coow li moo bari coow li tooñ gi moo ëpp tooñ xam nga suñ boroom kenn ku fi taxaw moo la fi taxaw loo moo wàcce ñëpp ci àdduna kenn ku ne mu def la li nga bëgg a doon wala mu def la li sa waajur doon kenn ku ne mu jaarale ci yoon wi nga war a jaar chrétien yaa ngi fi musulman yaa ngi fi jullit xàqan yi suñ borom balancé kenn ku ne mu defal la nga am yaay ju baax am waajur bu baax ñuy ay référence ci réew mi kenn ku ne suñ borom jox la lii sa cër mu cëralee la ko kii way way wi mooy cëram bu neexoon yàlla mu def ko leneen mais ci way la ko seddee mu ne ca loolu mook suñu borom la ca bu ca yeggee suñu borom rek a xam ne dogalami kii musicien kii mbër kii footballeur kii di jàngkat kii di taalifkat kii di firikat kii di ustaas kii suñ borom teg ko ci kanamu réew mi mu taxaw doon président de la république kii yàlla def ko muy ministre kii yàlla def ko muy jaaykatu cuuraay kii yàlla def ko muy jaaykatu goowe kii yàlla def ko muy nappkat kii yàlla def ko muy baykat suñ borom kenn ku ne mu balancé la lim la war a balancé benn jullitu yàlla taxaw ne lii pour lan nañu ba pom réew mi dafa am lu mu soxlaa tooñ gee bari ngay dem ci sa yoon nit ne yow mu am waajur nga am waajur mu am yaay nga am yaay nga toog ne fii laa jàngee fii laa defee nii ñëw taxaw ne lii la suñu borom wax te suñu borom yow bis boo ko gisoon baa nga gis ko suñu borom yónni nga daw ba fàtte fa sarbet ba nga woddoo taxaw di gisé ne suñu borom moo ma wax lii wala suñu borom laa moom moo ma moo ma wax lii lii mooy am ay fen mën naa weesu loolu sol sa sabadoor mu rafet ba bëgg a dee nga teg sa koppati mu ne noonu nga teg sa dara mu déggal la nga toog yor say fen di fen nooy nu mu la neexee fen yi ñu taxaw sañ ko apprécier ne fen yi dañ koy may ay droit pour lan kenn ku ne mën ngaa yar te doo dóore kenn ku ne mën ngaa aw dóore bi du dara du du yoon kenn wut a dóor kenn ndax fii la ngay xoolee nit ba di ko dóor bu buñ la ko xoolee woon dóoree la ko yow te kenn dóoru la ñuy dóore dañ leen a war a dóor te ñoom kenn dóoru leen ñuy dóore pour lan dóore nañu ba pom yi réew mi moo am lu mu laaj nañ taxawal fulla ak fayda sunu réew mii nag naa la wax leen de ñi ngi fowee lu nu xamul de danoo nekk ci réew mu doy waar dégg bari na dama leen ni woon 2020 li xeeñ 2020 2021 lay xasaw xunnu Serigne Saliou xam na ne dama leen ni woon li xeeñ 2020 2021 lay xasaw wax naa ko seen wax naa ko ci réseau internet nee naa leen li xeeñ 2020 2021 lay xeeñ lay xasaw xunnu te yaakaar naa ni kenn waxatul na xasaw naam xasawut nanu seetaat sunu bopp dégg bari na nee naa leen 2020 2021 2021 jigéen ñi la deewu jigéen ñi bari nañ ndaw ñi bari nañ ñaa ngi dee nu ne nañu xoolaat suñu bopp te ba tooñ gi tooñ gi dangay fekk jàmburu yàlla bu suñu borom balancé wàlli wu yaa ngi ci suñu biir ñu leen di tooñ di tàngal seeni xol xanaa mën tàngal nga benn xolu doomu aadama réew mi yëngu tàng jër te xamoo lu tàngal réew mi te fekk na doomu aadama ji nga tooñ la te amoo ku la ko wax nag ñi ngay waxal ñëpp xamuñu dara ba tax ñu mën leen a wax li mi ne nañu ba tooñ ji te ñi tooñ nekk ay kilifa ba jaaw ba weex nanu jëggalu ana nga bee jaaw ba weex tàll say ba kaw wadd say ba ñu suuf wadd say ngaam wàcca wàcca wàcca wàcca wàcca ba ma ne pat dant fris sa sidit yi yolam toŋ ngay tooñ xale bu tuuti bu doog a fett ci nen topp ci buntu carrière am nga ne di ko fay man yaay laa su waali defoon lu ni mel wala ma gis lu ni mel ñu def ko ci réew mi non damay génn wax damay génn wax damay génn dal ci ki ko def mais waali bàyyi Faal bi taalibe sëñ Bàmba bi bàyyi Mouhamed mii waaju baax ji ñu jël lu tilim li di ko ko teg barke sëriñ Touba suñ borom mere na leen billaahi wallaahi tallaahi suñ borom bari na ñoo xam suñ borom mere na leen te bala ñuy def ñaari weer ci réew mi di nga xam ne suñ borom mere na leen ndax dina leen teg lu diis dundul attan waali ñi ko tudd ñëpp ak ñi ko sosal ñëpp suñu borom dina leen wan lu diis lu ñu mës ta dund ci seen àdduna te duñ am kuñ ko kalaame couleur bi am na ci crayon am na ci bic am na ci kaye am na ci ay t-shirt barki Demba Ndiaye am na fularet bu fi xew jigéen ñi di ko musóoroo sërëg musóor couleur bii la yaa may déglu crayon ñaata paquet couleur moo ci nekk nañ waxante dëgg ñaata paquet couleur moo ci nekk waa léegi lan mooy problème bi ETS bu njëkk ba ban couleur la daan fayee téléphone bi la danaan grillé soo bëggee sosal ni daal nu ne mën ngaa taqale ba sosal ko sénégalais dafa am ñenn ci sénégalais yi ñoo xam ne dañoo mën a tilimal ku nekk ci buntu di dem waali daal nañ ko bàyyeeg ni ko yàlla def te xam ne suñ boroom a ko sàq gis nga bu àdduna bi yëpp ñëwoon ne dañuy daanu ci kaw soxna Ayda te suñ borom àndu ci na leen wér na leen duñ yegg si nanu jàpp ne waali bu àdduna bi yëpp doon daanu ci kawam te suñu borom nanguwut du tal doom ju baax la waajur wu sell la ko yàlla jox waajur wu ne tekk nag bu sëyal baayam fii bari na fi kilifa yoo xamante ne ni seen jabar yi duñ leen tënji bala ñu leen di tënji ñu dem bu yàgg wala ñu xuloo bu yàgg wala ñu fay wala seen vie dinañ ci am 40 soxna ndax soxna su ne un an la ñuy sëy ak yow coon nag kenn ku ne xam na ne dafa am fu mu jaar ak kinne jaaga dafa sëy yaayu waali dafa sëy moo tax doom ji mel nii mu mel nenu belende la nañ ko bàyyi noonu ñi koy tuddee ñooñu ñëpp kenn ku ne yaakaar naa ne mos nga loolu est-ce nekkoo woon benn affaire boobu nga dem ba bëgg a soppeeku bëgg tudd waali ñoom ñi ñëpp ay raaskat lañ ñi ko ko ji ñëpp ay vëyu lañu ay band yu mag lañ ñu ay band yu ndaw de li ñu tox waali toxu ko li ñu ñam ci naan gu bon waali naanu ko fu ñu dugg ci boîte waali dugg fa nañu régler seen bopp dañ jëlaat beneen sens da jaay pentiir yi body yi xew léegi ñaata body xew ñaata pantalon évasé moo xew ñaata saak moo xew dañu bàyyi tooñ maa ngi ci seen kaw nag maa ngi ci seen kaw de jusque là woo waa tàggatoo di wax sama gars yi soxna Aida ak seet gi ci nu ko waaye gaa yi bëggee soxna Aida moom àdduna wërngal képp kenn kenn laajteetu ko pommade soxna Aida pirate bi bari na génne nañ ci ay bouteilles yoo xamante ne ni kubéer yi vert fluo la ak vert clair mais soxna Aida mi ngi préparé changé ay programme am euh, daanaka tamit pommade bi moom wërngal àdduna wërngal képp li jaratul kenn ko présenté ndax moment bi ku ko bëgg par commande nga koy bëggee xam nga lu baax moom dañ koy commandé waaye feebar boo xam ne moo daal sénégalais yëpp nga bëgg koo stabé sax ñu nga publicité ko jàppal ne li ngay jaay amul fi mu ne li ma ci yor ci ay commande bari na am na ñu dugal seen xaalis sax jotaguñ seen i moo tax bëgguma sori ci publicité bi après dinaa ko publicité waat ci semaine di ñaanal sénégalais yëpp yal leen yàlla may ay xar te ñi am doole nañ dimbali ñi amul doole te suñ borom yàlla fi yàlla def jàmm yàlla def fi tawféex ñu génne saraxi Sénégal maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak war a suuli ku mën génneel ñaari kilo ceeb mbaa ñaari kilo suukar mbaa juróom-ñaari kilo mburu nga saraxe ko jamono ji doy na waar jigéen ñi doy nañu waar li dal ci seen kaw metti na atu 2021 2021 jigéen ñi la depuis 2021 le la 4 janvier maa ngi dugal ay vidéo di leen wax ne li xeeñ vingt 2021 lay xasaw xunn te mi ngi xeeñ di dem rek mi ngi gilli nag soxna ay nee na ngeen génne sarax yi woo leen ma ci samay numéro ma baaxee leen sarax yi ngeen génne ko ay jaboot lañ te ci réew mi laa bokk soxna Aida nag ku weddi demal vaar ku bëgg a xam kuy soxna ay dëgg dëgg dëgg dëgg demal vaar nga jàpp date jàpp heure jàpp lam fa waxoon jàpp kañ la am jërëjëf Serigne Saliou